asiiru ila dil barri wal baxri aabidan walastu ilal fujjaari awdu asiiru dox boo xam nag bokkut ak doxu gaañ yi fa qumtu majzuban ilayka minka bika alayka wa bi sax dana ko wommat waaye léegi day wax ne yónente bi wa qaadani ilayka yaa bika